Euh, <clears throat> gannaaw bu ñu nuyoo journaliste yi nuyu waa Pastef Grand Dakar nuyu monsieur le maire Bassirou mi nga xam ne ñëw na tey ànd ak ñun ci bis bi ñun waa Pastef Grand Dakar bu Ziguinchor dañuy wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ndax bis bi tey bisu sant yàlla la bisu ñaan la waaye bisu sarax la mais aussi bisu souvenir la souvenir ndax lan dañuy fàttali ni fii ci Grand Dakar ci Bokot Sud la Macky Sall ak ñi mu àndaloon faat fii ñetti ndaw jeune ci manifestation politique yi nga na fi buñ ko fi au moins seize victimes ci Grand Dakar ci na kenn koo xamante ne ñàkk na ci tànkam ak ñeneen ñi nga xam ne am nañ ci ay gaañu gaañu yu metti ak ñeneen ñoo xamante ne dugal nañ leen kaso toroxal leen bàyyi leen. moo tax Pastef Grand Dakar tey ci prétexte bii ñu nekk nii mu méngoo ak anniversaire ki nga xam ne mooy sunu frère patriote daxa Daxaba te ñu reyoon ko fi le 4 août 2003 2023 tey ñu ne nag journée bi dañ ciy fàttali ko en même temps ñeneen ñi nga xamante ne dund nañ même situation ko moom. ci fàttali ki nga xamante ne moom mooy Idrissa Goudiaby ci anam yooyu lañ ko reyoon bi ñuy bëggee salfaañe yi nga xamante ne moom mooy sunu ak ak sunu yelleef bëgg repousser élection yi jaaree foofu yàq list national bu coalition ko président ci la ñu jóg ne dañuy jaamaarlu ak ñoom ngir delloo si waat démocratie fi nga xam ne foofu la mës a nekk ci Sénégal ci lañ ko faat loolu bu mu weesoo moom Macky sàll ci boppam. même fekk président Ousmane Sonko di président wu Pastef ci biir këram avec des accusations fallacieuses ñu né dañ ko fay jëlé dem tëj ko ci bir kasso bi wa Pastef Grand Dakar ne nag ñun gina Ousmane Sonko ci ngor lañu andon ak mom tay duñu gën goré gore nañ ko loxu yobbu nañ ko waaye laataa mu yegg fuñ ko jëmé Pastef Grand Dakar dina jox taxaw temm pour protéger li nga xamantene mom moy projet boobu ci lañu ñu tak takk sunu dàll dox ci kaw yoon dem xex ci loolu lañu faat ki nga xamante ne moom mooy Thierno Daxaba Macky Sall ak ñu mu àndaloon yemuñu ci loolu ki nga xamante ne moom mooy Landing Camara également élection bi nga xam ne sénégalais yi ñoo ko moomal seen bopp ndax suñu constitution moom moo ko wax Macky Sall ci coobare boppam jël décision ne da koy repousser patriotes yi yëpp ci Sénégal jóg pour jaamarlu ak moom encore une fois pour delloowaat démocratie bi nga xamante ne sénégalais yi ñoo ko xeexal seen bopp ba téye ko ñu daal di dellusiwaat ci même quartier bi nga xamante ne moom mooy Boucotte Sud mooy Grand ñi faat ki nga xamante ne moom mooy Landing Camara kon ñett ci ay ndaw rey nañ leen fii ci Grand Dakar moo tax ñu ne nag tey nañu fexe pour ñooñu tëdd fi ñu tëdd ngir ñu mën a jóg fii ñu tëdd ni ñun waa Grand Dakar wañu leen fàtte waruñu leen fàtte mais war nañ fexe ba képp kuy sénégalais képp kuy dund ci kaw suuf démocratie yitteel la jub ak jubal ak jubante yitteel la nga yëg loolu ndax ñun dañu bëgg bu ëllëgee ñu am ñoo xam ne tey même bu dee dañu fay ñëw Sénégal vingt ans cent après

ba tey ci loolu lañu ñu nekk ñu ngi leen di gërëm di leen wax ñom fi tek seen tank nañ ko fa bayyi fi ñu nekk nañ gën a góorgóorlu ci yoon boobu parce que loolu moo tax sénégalais yi top leen benen bi moy il faut que justice soit faite ñun fiñu ñu nekk nii suñuy xol mënut a sedd li ñi wax dañu leen di indemniser loolu lu baax la am nañ ci njott ni ñom dinañ ko def parce que wax nañ ko du ben du ñaati dinañ ko def mais même suñu joxone 1 milliard te justice n'est pas faite également suñu xol bu sedd parce que ñi ñi ñak kenn mënu ko fay motax tax ñuy ñàkk gouvernement bi ñu gën a góorgóorlu ci li ñu nekk li ñu waxante woon ak sénégalais ñi ngi ci gaa mais nañ ci gën a góorgóorlu nañ ci gën a gaaw pour que justice soit faite beneen bi ci des kër yi ñu jóge ay njaboot ñoo fa nekk xale yi fi jóge ay xale yoo xam ne amoon nañ jëriñ seen waajur am jëriñ ci gox bi ñu nekk comme jóge nañ fi boobaa gouvernement bi ñi mu àndal ngir yàlla nañu bàyyi xel njaboot jooju nañu bàyyi xel gox bi nga xamante ne foofu lañu ñu jóge nañu bàyyi xel jeunesse sénégalaise de manière générale ñun parce que Grand Dakar on n'a jamais été demandeur de quoi que ce soit nous avons porté ce combat parce que cette conscience-là découle d'une valeur patriotique qui nous a toujours habité depuis le temps de nos grands-parents. Lolo moo ñu ñu xex engagement bi ñu amone C'est bi waxnako sank version française engagement à lañu am tey mom la am suba bu soobee yalla kon nañu bay xel li nga xamantene mom moy jeunesse sénégalaise nañu bay xel ci combat bi nga xam mom lañu mëne won nañ ko continuer ba keroog sénégalais yi di am jamm moy suñu développement ci ñun loolu moo ñuy xex kon loolu lañu amone amoon dañuy wax ci gërëm ñep ci ñep wa suñu conférence de presse bi may wax si baatu mosi bu Grand Dakar jigéenu Pastef bu Grand Dakar li fi ñi ñi fi jógee li ñu wax moom laay tënk rek di wax nguur gi ni dëmb engagement bu ñu amoon di leen jàppale mu jaral ñuy bay suñuy doom bay suñuy yitte doon ay jigéen jigéenu jàmbaare nag di génn di dem xee lépp li nga xamante ni mun nañ def nar nañ ko def ci projet bi def nañ ko te amuñu si benn recul amuñu si benn attente bi nga xamante ni intérêt général intérêt personnel la di ñaan nguur gi xam ni ñu nañu am yaakaar si ñun ñu ñu fu ñu leen taxawaloon dëmb man la foo lañ leen di taxawale tey jusque benn affaire rek lañ leen di ñaan mooy ko suñu doom yi parce que ñii dee si si bataay bi ay doom lañ te xam nañu jigéen nu mu mel ak doom dara gënul métti sa doom mu génn daw di dem xeexal réewam ñu woo la ñu ne nii moom a tëdd hôpital wala nga gis ay vidéo muy sukuraat dara di génn fépp si moom loolu yéenewuñu ko benn jigéen te ñi nga xamante dal na leen au pour dara mënu remplacer li leen li leen dal mais jusque ñu woon leen ah ñi defoon ni seen ay doom ils paieront les pots donc jigéenu Pastef Grand Dakar nous sommes et nous resterons des patriotes bi lu mu jar dinañ ci dem ba projet bi aboutir parce que dañ ñu ko jaay mu séduire ñu mu jaral ñu ñuy bees ñu lépp pour dem xeex kon président Diomaye ñu ngi lay ñaan di la encourager si yoon bi nga nekk na ko continuer ñun yàkkamtiwuñu ndax xam nañ fi nga jëmee réew mi moo gën ku xaar 60 ans mun na xaar ay mois. premier ministre Ousmane Sonko yow xam nga fu Grand Dakar taxaw fu la Grand Dakar teg ngir projet bu ñu jaay wa ilaa boo mënul wàcc si au moins sax ñun ñu xam ni li ñu digoon te am nañu yaakaar ni yaa ngi si donc suñu doom yi ñu boom au moins wan leen seen yaay yi ah diw moo def nii seen doom di leen nuyu di leen gërëm di xam di leen wax ni jigéen ñi tey la ñu gën a taxaw tey la gën a représenté wasalaam Mariama Balde madame Massali présidente Mosif Grand Dakar. cellule Pastef Grand Dakar jël na ko am solo di fàttali yi nga xam ne ñun dund nañ ko fii ci Ziguinchor mu doon loo xam ne lu méttee méttee métti am ay ndaw ci gaañu ma jàpp ni tey bis bi bu ñuy rendre hommage. nga xam ne mooy maam Thierno Dakhaba on rend en même temps hommage aux douze victimes yi nga xam ne Ziguinchor am na ko Ziguinchor moo ëpp yi nga xam ne am na ko ci décès ci événement yi passé ma jàpp ni tey bu ma jëlee exemple ci primature boo ko defee balaa ngay dugg ci bureau Ousmane Sonko dafa def benn affiche boo xam ne tous les martyrs yi nga xam ne ñoo jotal loru ci événement yi mu affiché ko boobu ku ñëw bay dugg ci biiram nga gis nga xam ne ñun caaxaan lu am na xeex boo xam ne bu méttee méttee ba nga xam ne am na fi ba yàlla def ba ñu jël nguur bi tey mu nekk synonyme d'exemple ak d'engagement ci li nga xam ne tey dina ko teg comme acte politique euh, au Sénégal ma jàpp ni fàttewul li nga xam ne moo ko fal moom ak Jomaay boo xoolee les conseils ministériels bu jot a jàll jot a jàll ay fan jëloon nañ mesure pour indemniser ñi nga xam ne ñooy victimes yi non seulement les victimes ñi nga xam ne loolu nañ ci mais tamit ñi ci jëlee ay gaañu gaañu ak ñi nga xam ne jot nañ tëj jël engagement boobu xam naa di nga suivre autant euh, que moi circulaire yi nga xam ne jaar na ci biir parti bi képp koo xam ne xam nga blessé wala képp koo xam ne xam nga ku gaañu ci événement nga signalé ko bu ko defee ñi recensé ko donc recensement yi gars yi ñu ngi koy def donc loolu day wane une fois de plus la volonté euh, du régime bi fi nekk pour rétablir non seulement bi nga xam ne mooy ay dommages et intérêts yu am mais tamit question bi nga xam ne tey moom moo ëpp solo ñëpp et la question de la justice ma jàpp ni nous war nañ xam la moo retardé tey poursuite mu am ci mbir moomu dañu woote ay assises nationales de la justice kay jébbal ay conclusions au président conclusion yi président mu ngi ci a bientôt dina ko approuver bu paree dina ko jox ki nga le ministre de la justice donc je naa ni nous ay fan danañ commencé jot ay convocation ñi nga xam ne ñëpp ñi nga xam ne jot nañ cee dugg ci mbir mi façon bu ne am na ñu joxe ordre am na ñu nekkoon sur le terrain di tirer yooyu yëpp il faut ñu leeral ko ndax bu leen fàttee am na quarante cinq milliards boo xam ne gars yi génnoon nañ ko jënd ay armes yoo xam ne kenn xamul fu mu jaar kenn xamul fu mu jaar da ngeen yaakaar ni loolu dinañ ko bàyyi noonu ci état bu sérieux donc y a tellement de yi nga xam ne tey war nañ ko régler ma jàpp ni état bi te ñu ñoo ko war a dooleel ci prise de décision yi mu war a def ndax wax ji dina bari ñëpp ñoo xam ne ci système bi képp koo xam ne laale na ci système bi système bi xaajagul laa la wax bay dee combat bi fu ñu jëm déjà France won nañ ko ñun bëggatuñu nekk sa taalibe dañ bëgg nekk sa alter ego décision boo ne booy jël fekk ma gis sama bopp boobu jël nañ ko ci politique bi nga xam ne tey ñu ngi koy def boo jëlee exemple rek ci DG bi nga xam ne nommé nañ ko fan yee même pas trois mois ñu limogé ko c'est parce que ñi fi nekk am na lu ñu gëm te fii tënkoo ci loolu doo mën a xam nag ñoom moo tax tey c'est des questions tey yuy dalal xel yu wane ne ñun gëm nañ ni justice sera faite gëm nañ ni Sénégal dinañ am un lendemain léegi nag jeunesse bi moo war a parce que dara xëyul rek baax mu jëloon exemple ci Ousmane jëloon exemple ci garab garab balaa muy ngay njëriñ ngay ñariñoo garab bi day am ay étape maanaam da nga koy njëmbat def ci engrais ah arrosé ko mu def quelque temps après mu soog a joxe ay fruits donc noonu la ñuy defalee réew dama jàpp ne ñu ngi ci principe yooyu ñu ngi ci fondement yooyu boo xoolee tey tous les postes de direction yoo xam ne joxe nañ ko daam suñ ko lal xool nañu compétence xool nañ jaar-jaaru nit bi mais tamit <laughs> service de renseignement ñu ngi fi de léegi ce n'est plus service de renseignement la ñuy jël pour espionner des des politiciens maintenant même les directeurs généraux sax dañ leen di bàyyi xel président na leen di xool premier ministre da leen di xool ku yaakaar ne yaa ngi def dara te di ci génnee non wala di lobal xaliss réew mi loolu du jàll dama leen di ñaan ngeen dalal seen xel nga xam inshallah dinañ xam ñan ñoo buum suñu frère yi inshallah dinañu rétablir les faits bu ko défé waxtaan balaa mi am wala balé am il faut que la justice se fasse japp ni ñu ngi ci tank yoy donc je vous remercie di di remercier ki nga xam moy le coordinateur de la fédération de Grand Grand Dakar mu nek ko xam ne ku ëmbal nekk sama serigne mu mu am taxawaay bu rafet ci Pastef di remercier jeunesse su Grand Dakar ci xeex bi jeunesse Grand Dakar macha allah xeex bi kenn du leen ci njëkk ñoom ñooy njëkk a baare fi balaa ñee di baare ñoom ñooy njëkk baare fi ak volonté bu ci àndal ça montre aussi le nombre de victimes yi nga xam ne am nañ ko ak tamit les blessés ñi nga xam ne ñoo fi nekk donc ñu ngi gërëm ñëpp di masaw ñëpp vraiment di remercier euh, kilifa yi fi nekk comme ça le représentant des jeunes des femmes merci beaucoup jërëjëf ah,